subhanallah la hawla wala quwwata illa billah man du ma xuloog doomu aadama mm-hmm. ndax eh, bi qiili wa qaala laa tastaxilli mm-hmm. wa bi salaati alfatixi li ma oxliqi astaxil mm-hmm. sëriñ bi daf ne woon taalibe ya yaa ma ne laak maa ne laak amul njëriñ ba fa ma nekk lan moo am njëriñ ma ne ma salaatul fatixa fabal sa kurus gii daal di wirdu bu baax sikkar bu baax daal di am gën gi may kon temps bu ma am di wax nangam nangam rek loolu du ma ko def li tax ma wax la lii mooy xuloo ŋaayoo wallahi am mënoo ci am ndam bu kenn dara di la jaral ngay xuloo wala ngay xeex lépp loo bokkul nit yéen ñaar ngeen seq ànd ko am ko mu dem bëggal la ko bëgg bàyyi ko ko yàlla dina la jox leneen lu ëpp loolu man maa wax loolu Cheikh Al Khalil soxna Mboojo Mbaay fii laa daal toog ak moom mu nekk ma dem man maa dem ba gis ne ku baax la mhm. jigéen ñi bëgg nañ ko mhm. ndax moo nekk seen bàjjen ci seen biiri néegu sëy mhm. ndax jigéen bu fi am jëkkër bu ne wallahi li nga gën a bëgg ci àdduna mooy yàgg sa jëkkër ngeen am ay doom yu baax te ngeen yàgg ma dem ba gis loolu ma waxtaan ak moom ne ko kaay fii ci daara ji solution ñi liggéey. Mhm. garab yi baax na jigéen ñi dañu am ndoxu siti mhm. garab yi baax na mhm. jigéen ñi dañuy bëgg nga leen di sëy lu bëri. ndax fa innal mar'ata tansiqul wat ah mas naa wasula sa waruban jigéen bëgg na nga di ko sëy ci guddi gi. benn yoon ñaari yoon am ñaari daanu loolu bëgg nañ ko. te góor ñi dañoo néew kàttan. moo tax may wax ne sequma ak jigéen waxuma woon lii. sequma ak sama góor nekk sama nawle nga gis vidéo bi ne dama feebar jox ma sa xaalis te fajuwoo loolu dama ko seexlu. Mhm. soxna Mbooju Mbay yaayam mu génn àdduna. Mhm. ma di ko naqarlu. Mhm. feebar bi yépp ba keroog mu génn àdduna ñoo ngi ci déggante man ak moom. ndax ci daara ji la bokk. lan moo ko tawat. taadadi asbaabu wal mawtu waahidun so sa maanaam jaar-jaaru dee yi day bari waaye dee moom benn rek la. bu ko defee li ko waral mooy. xam nga amoon na fi coow. saraxu coow daa génn ci moom rek. loolu nag gor. wala nit dof du rus. Mm-hmm. mbokk yaay rus. Mm-hmm. bu ko defee nag yaayam daal di dégg wax yooyu rek mu mm-hmm. jàpp ko. ba keroog mu wuy ju boromam. ci gaañu. bi mu gaañoo nag sa yaay du gaañu wala mu feebar nga nekk ci ay wax internet ak yooyu. waaye dina ñëwaat fii. ci seen site bu mag bi ñu ñu toog waxtaan ak moom. ñu jóg li nga xamante ne mooy coupe du monde. ñu bari naan Sénégal premier tour lay toog ndax Sadio Mané fubalul euh, en tant que ñaankatu yàlla naka nga gisee sunu gaynde yow dem jongante ji. man maa ngi tàll sama ñaari loxo di sujjóot di julli di ñaan yàlla sens bi ñu amoon ak dëggal suñu bopp ca gaynde ya ca tere ba ba gagné coupe d'Afrique bi. ñu defaat noonu ba indi coupe du monde bi man lii mooy sama xalaatal ci lii laa nekk lii lay ñaan yàlla. Mm-hmm. ma ñëw ci li nga xamante ni mooy lëmbe fan yi ñu gis ni sëriñ si daanaka léegi kenn ñemeetu la doon sëriñ kenn bëggatu ko doon sax parce que ku jug ku jug xas leen na bu demee ba Pawlish Mbaye taxaw di menacer ñi nga xamante ni ñooy marabu yi ah naka nga jàngatee loolu. waaw naqaralu ko loolu sax méttitlu ko méttitub xol xam nga xam-xam dafa nekk lu foor xam nga xam-xam mooy liy dundal doomu aadama bi xam-xam mag ñi dañ ca yàggoon a sonn. te xam-xam leer la nuuru nëx di bii mën na chaaw leer la goo yàlla moo koy yekkeekal ku neex ku ko neex xam-xam dafa bëri te bokkul waaye xam-xam bi nga xamante ni moom la nit ki di xam bañ koy woyu sëriñ ba fu mu jógee ni ngi topp ci gannaawam ba fu mu toog ñëpp toog wàcc ci suuf kon kooku dañ ko war a màggal ndax borom xam-xam bi daf ne woon walaw anna ahlal soo saanuhu bu fekkoon boroom xam-xam yi dañoo ñoŋal respecté wekk téye bu baax a baax a baax jëmmi xam-xam saanuhum xam-xam weg xam-xam leen xam-xam téel leen boppam wala azamuhu fi nufuus bu fekkoon borom xam-xam yi dañoo wane ragal yàlla dañoo wane manute dañoo wane njub kon billahi lazi laa ilaha illa hu Pawlish du mas a toog ci tele ne sëriñ nangam dafay ëmbël mhm. wala sëriñ ci dañuy def nangam xam nga tey Pawlish mbay bu génne ku baax la man dam man daf ma daf may bégal dama koy seetaan di reetaan bu demee ba génn nag bay wax di attaqué nag ah kon dafa gis lim gis rek la wax. bu mhm. fekkoon ne dafa yendoog sëriñ si gis nañ ñoo dàq julli. Mhm. ñoo gën a fegu. Mhm. ñoo gën a am yërmande ci doomu adama yi. kon du waxee noonu. kon daal mbir mi mbir mi uude ni la gisee rek la lay ëwale moo tax boroom xam-xam bi daal waxoon ne nit ñi buñ fegu woon. te xam-xam te ñoŋal ko te màggal ko nit ñi fegle leen. Mhm. fonk leen. Mhm. waaye nag wuude ni mu la gisee rek la lay ëwalee. Mhm. parce que dem na sax ba naan sëriñ si dañoo bëgg jigéen dañuy woote di ñaan ay jigéen ci en tant que sëriñ nga xam ne buñ ko mësaan a dégg rek wala fuñ ko mësaan a gis ñëppay dem tàllal ko seeni loxo. mooy li ma métti xam nga tey da gis nit ki ñi tiitare ne sëriñ sàngam. muy wax nangam. kay fee nangam. xam nga Baye Niass daf ne woon. nit mu ngi yore fukki karnaas ak juróom-ñaar mhm. maanaam fukki secret yoo xaman lii day ubbi nit lii day jox nit xaalis lii day dëddale lii day boole mhm. lii day noob lii day ubbi nit mhm. yor nga ci lu wér de waaye yow yaa wérut yow mi ko yore yaa sellalut xam nga alxuraan daf ne fadu llaha muxlisina booy ñaan yàlla da war a sellal waaye Pawlish Mbaye xam nga boo koy déglu day dem ba si yàgg ma ne sëriñ sëpp nangam sëriñ ci dañu nangam mu dem ba si yàgg mu settee ne sëriñ daw nangam kook boroom ñaan la kooku borom xaas la. kon tey soo ñëwee ci kër gi gis ne am na ko fi saqat doo génn rek ne kër diw sàngam na ñëpp ngay saqat. moom Pawlish mbay day wax diw sàngam moo def nangam. diw sàngam moo def nangam. waaye sëriñ bu sell. bu laab. boo xamante ni mu ngi toog ci tànkam. di ñaan yàlla. te Seydi Hadji Malick daf ne woon. soo mëntu wax ak yàlla. da wax ak kuy wax ak yàlla. sëriñ mooy kuy wax ak yàlla. yàlla ne ñaan leen ma ma may leen. te ñaan am nuñ koy defee. tey su ma ñëwee ne la may ma cent franc. da gis sa bopp doo may. waaye su ma ne la yaa baax. yaa gore. sa yaay baax. sa yaay yiw. da may jox lu ëpp sax. ñaar fukk. kon dafa mel ni sëriñ si boo leen gisee li ñu waxee noonu. dafa mel ni rek li ñu wane ci kayfiya. di siwal mbóot yi. dafa mel ni ñu toogoon fii rek sama kalpe ma gis ne Maodo ñaan for na ko. Mm-hmm. nga toog ba si yàgg yow mii rek mm-hmm. alaaji nga ne gis naa kalpe bi damay reetaan damay xam ne foro ko mm-hmm. moo tax sëriñ si li ñu wootee mm-hmm. di siiwal mbuut yi mm-hmm. sol mbubbum sëriñ mi dara nekkul ci ñoom ñooñu mu nekkul ci ñoom nag ñoom la Pawlish mbay di wax ak waaye Pawlish waxut ak ñu sell ñi jërëjëf tey ma ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu garab yi garab yi vraiment euh, fu nekk wër na ko ci àdduna bi garab yi daanaka benn la fi bari na ñoo xam ne ñu ngi koy mbuboo di ko yor mais bu baax bi fii la garab yi laa bëgg nga ma ci ay leeral lan la garab yi di def ak yan effet lay doomu aadama waa garab bi bala ma laa ñëwal ci li muy li muy faj effet yi muy def dama lay wax liñ ko defaree. Mm-hmm. garab yi wolof lañ ko defaree. garab yi wolof boo déggee ñuy wax garab yi wolof mooy xas ren mm-hmm. xob doom te loolu rekk am ci garab. Mm-hmm. te maa ngi lay xamal ne la ci li ma jàngagum te boroom xam-xam yu bari wax ko ci fajum cosaan fajum garab. nee yàlla mu ngi wàccee lu ëpp. ñetti junni ci ay garab. gars yi dem nañ ba gis ne junni ak juróom-ñaari garab moom day faj. Mhm. yii day faj hémorroïde mhm. yi day faj ballonnement mhm. yii day faj siburu yi day faj fatiguement général bu ko defee ne garab bii mooy aljalaal nga xamante ne nii wër na réewi Afrique yi wax nañ ne ne garab gënu ko baax ndax liñ ko defaree ëpp na fukki meññet ak ñaar bokk na ci rek renu keng Mm-hmm. reenu dimb mm-hmm. reenu senjeñ mm-hmm. ak pitikola jinjeer ak laaj ak yeneen léegi ma ñëwal la nag ci li muy faj gis nga butéel bi soo ko naanee fekk yaa ngi am sinusite bakkan yi ma ngi fat da koy faj ci nu mu gën a gaaw ci boo amee ñaari butéel donc mu daggal la sa sinusite mooy bakkan yi fat su fekkee ne bët yi dafa neexut moom soo ko naanee ki changé da ngay gis ne ma ngi raxas bët yi. Mm-hmm. ndax da gis ne comme sa bët yi ma ngi commencé fulu. Mm-hmm. bu fekkee ne nga xamante ni jahaasul asabiya mooy doomu aadama yuur gi te yuur mm-hmm. daanaka mooy nit. da gis ne bu fekkee bopp bi day métti. da ngay gis ne ma ngi faj méttitu bopp bi ci nu mu gën a gaawee. bu fekkee da nga am ensime ensime mooy bële gi di fatt ak yooyu. da ngay gis ne da koy faj. nga ñëw ci wàllu biir. biir bu def ngelaw. biir bu yuuxu. Mhm. toog ba si yàgg rek sa biir bi di gururu yi noonu. ballonnement mhm. bu fekkee da koy faj. Mhm. bu fekkee da ngaa toog diir bu yàgg nag. ngay seere. ma ne la boo jëlee butéel bi nga naan ko deux heures de temps. da yebal nga dem toilette. te soo demee toilette da ngay génnee li ci nekk ci nu mu gën a gaawee. bu ko defee feebar bi nga xamante ne moo lëmbe àdduna. wër réew mi. mooy néew kàttan. impuissance sexuelle. te yii ma la wax mu koy faj. day waral néew kàttan ak yeneen. mbooleem jàngoor yi nga xam mooy tax nga new kàttan bii bu ñëwee da koy faj. Mm-hmm. néew kàttan nag man nga daanu léegi bala ngaa jógalaat mu yàgg. man mm-hmm. ngay sëy. Mm-hmm. di gaaw a daanu. egg na ci new kàttan ci jamono ji ñu toll. boo jógalee bala nga ca egg sax mu daanu. suñ la fooyee teel a nii rek nga daanu. yooyu yëpp nag boom boo ko naanee. day tax ngay gaaw a jógal. te soo jógalee diir bi ngay sëy dangay gis ne awara bi gën a gudd gën a rëy ci jamono bi ngay sëy mm-hmm. ba pare sooy sëy doo gaaw a daanu mm-hmm. te soo paree da lekk da ngay naan mm-hmm. boo déggee lii ma la wax nag nga jënd garab bii di aljalaal ci waa daara ju solution lu ñu garanti la garanti mooy soo ko naanee ci bis bi suba balaa ngoon te gisoo li ma la ci wax dañ ko garanti woote waatal ñu delloo sa garab bu fekkee ne dangaa bëgg topp traitement bi pour faju ba wér. Mhm. ci faj néew kàttan. hémorroïde. Mhm. Mhm. fatiguement général tension raxas sa deret. dañ lay bindal garantie garanti suñu kase nga yor de. kase laa yore boo ko jëndee pour wér xam nga tey tane ak wér bokkut. tane mooy naan nga ko rek dem nga toilette nangam. waaye da ngaa bëgg nekk tàqale koog seere. da ngaa bëgg tàqale koog néew kàttan. da ngaa bëgg tàqale koog sinusite. ak fatiguement général bi. bu ñu la xoolee ba xam li nga ci war a jël. Mhm. dañ lay jox cachet. Mhm. muy tamponné bi. Mhm. mu doon sa garanti garantie nag xam naa ne police moom boo fa demee yóbbu sa garanti moom. fa la garantie yam ci garab yi lañ ci bokk na ci composant garab yi. non garab bii moom jógewul Sénégal. li muy faj mooy ndayu feebar yi. Mm-hmm. ndayu feebar yi mooy koo xamante ni am nga jabet. am nga mm-hmm. feebar boobu muy ndoxum siti mm-hmm. képp ku am hémorroïde am nga ndoxum siti képp koo am ballonnement am nga ndoxu siti li tax mu wër nag nga xamante ni ñëpp ñëpp dañoo néew kàttan mooy ndoxum siti moo leen di sonal bu ko defee bii xas yi soo ko jëndee nga naan ko bu fekkoon ndoxu si day xasan sa yaram. Mhm. day dindi xasan mhm. boobu. Mhm. bu fekkoon sa yaram bi dafa am ay picc yooyu. da gis ne yaram wi ma ngi ruus ma ngi defaraat yaram wi. xam nga tey jigéen ñu bëri dañuy infection da leen yomb. dañuy infecté seen awra yi di am lu ci nekk muy dem ba xeeñ. garab gi da koy dindi. gis nga soo ko naanee. semaine. nga gis ne lépp loo doon yëg ci ndoxu siti mi muy awra bi xasaw wala muy xeeñ wala muy génnee dara ci kanam gi. da gis ne dañ na. bu ko defee it bu fekkee da ngaa néew kàttan mm-hmm. boo koy naan ndax ndoxu siti rek moo la jàpp mm-hmm. garab yi moo lay faj mm-hmm. te ba tey nag dama ko kase laa indi kase waaw te daal kase nga kase laa indi ci ndoxum siti mi képp ku am feebaru ndoxu siti nga woote ci waa daara ji jand garab yii te wéroo ci semaine ah woote waatam ñu delloo la sa xaalis dama koo kase. ah mu mel ni vraiment lañ ma mayoon ci waxtu léegi mu jeex li duuf ci nag bi nag xajul ci cin bi. Hmm. waxtaan bi neex na trop mu di Cheikh Al Khalil. Hmm. borom garab yu garanti yi. Hmm. man de c'est la première fois ma ñëw gis kase. ni la demal bu la neexee suñ koy kase nga ay avocat tey sa kàddu gu mujj ci émission bi. waaw kon su ma ne la daal garab a ngi nii gu baax. day raxas suukar. muy jabet. day raxas. xorom muy tension. day faj ay yax yuy métti. day tax nga gën a dëgër. day tax sooy sëy gaaw a daanu. te dañ koo garanti. te sa wér-gi-yaram na la gënal million bi nga def sa poche. ndax boo bay baylee di soo sooxaale sa xa sa jàngoro. ba kerek mën na dem ba million du la faj. ndax pharmacie yi ñu gën a wóolu. danga fay dem joxe sa xaalis te duñ la jox garanti. man nag garab yi bu fekkee daal li nga xam ne moo sonal góor ñi mooy néew kattan ballonnement. hémorroïde fatigue ma man dama ko garanti garab bii laa lay jox nga naan ko wér. dëgg la salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. mu ngi noonu moom la ñu amoon suñu invité mu nekk nit ku baax di ko ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm ak salaam euh, ñu ngi leen di jox yeneen dëkk daje suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.